kañ nga gëj gis Macky Sall. kan Macky Sall kañ nga gëj a gis. gis naa ko sëñ fàll mi ma wax léegi ba Macky Sall faloo ba léegi aw ma am demuma ci moom woowu jabaram woowu ma jotewu ma ak ñoom dara. ma gisee gis naa suy impliqué nii de loin nii de pari de près à Macky ba ma génnee pare ak Ablaye Wade laa a gëjoon. bañ naa ko su ma rombee sax damay tourné xool samay bët xool bindi mënuma koo muñ doo xool pare non non damay tourné wóor na yàlla yàlla laa jël seede jotewuma ak ñoom dara su ma jubee pale damay tourné ne xool bindi ma romb ndax buntu yooyu dama faa tàmmoon di jaar dafa fekk président Wade gisuma Macky dégguma Macky kon drapeau MS bi seenoo ko mukk duma ko seetlu tourné rek su may ñëw damay tourné bindi su may wañ ko damay tourné bindi <laughs> mais tey bu la yàlla mayoon chance de gisee ak Macky Sall lan nga koy wax. lu may doy Macky Sall. man PDS laa mais c'est un camarade de parti. d'accord mun ngeen dajee ci ci ci circonstance de réunir leen. man da xam fu nuy daje ndax man bu 4 <laughs> avril jotee bu ma joxee invitation du ma dem. ah bon buy dem méridien duñ ma dem. amul lenn lu ñuy organiser man nekk assemblée ñu jox ma invitation ma dem ca. mais lu tax c'est la république. république de kii man sama république mooy Ablaye Wade sama parti sama république mooy Ablaye Wade mooy Karim Wade mooy PDS. wallaahi demuma ci seen benn manifestation ko fu ñuy tase mbedd yi may dox Macky du ci dox fi may jaar du fa jaar fu ñuy gisee te bu ñu doon war a tasee sax su ma ko xamee damay jooy. mais lu tax. lim ma def <laughs> te mu nekkoon sa camarade de parti. wér na vingt ans nekk le président de la république. ànd nañ ko ànd bu rafet ak jabaram ak soxnaam waaye nag man PDS laa duma yaayu kenn duma tàntay kenn. du ma maamu kenn du ma bàjjanu kenn man bàjja doomu Abdoulaye Wade laa c'est le sang jotuma ak Macky dara wax dëgg yàlla jotuma ak moom dara te fu ñu toog ma yekk leen xeteme ndax Karim Karim Wade mais boo nee boo nee boo nee lii la metti woon wér na kon kay euh, mën nga war nga mën a envisager. xam nga euh, kañ laay envisager. Mm. bis bu ma amee droit bu ma xoolee pale ba ne ko jàkk du ma bu fa Karim nekkee ba ma rombee pale ba mbaa ma waaxu dugg li ma métti woon nag jeex complètement nag sama xol daal di féliciter amut leneen.